waaw la garaaw Jolof la jugee mais léegi Westfaal la dëkk. dëgg la alors Ngoné. bu ñu jugee foofu ñu jàll ci leen euh, transfert bu Ousmane Sonko. Mhm. Euh, dañuy gis à chaque fois amee am na collectif d' avocats mais mhm. dafa mel ni ku yor seen kàddu mooy maître Ciré euh, mhm. Clédor li moom xam nga dañu wax dañoo transféré Ousmane Sonko. yóbbu ko Cap Manuel. moom loolu ñu wax transférable dafa din transférable def fa enlèvement. enlèvement waaw parce que neen dañoo enlever ki nga xam ne moom mooy li mu ko expliqué nag moom mooy. Euh, ba ñu koy jël. Mhm. waxuñu leen ko ñoom waxuñu ko tam médecin bi saytu. Mhm. gu yaram bu Ousmane Sonko. Mhm. yemu ci mi ngi dénoncé patt patta gi nga xam ne euh, communauté internationale. ñu koy ñu ngi koy nekk fi nga fanaan tam war nga ñu ko wax yaa ngi ubbali sànq ba léegi. Euh, ginnaaw bi nga xam ne transfert nañu Ousmane Sonko ca Cap Manuel. malgré promesse yi nga xam ne ay avocat wam defoon nañ leen ko ndaxte ku ne xam nañu peut-être que hmm. waxtaan nañu woon ak euh, lu jëm ci euh, wàll ni nga xam ne noonu lañ ko fay yóbboo ak yooyu bien que Ousmane Sonko mu ngi doon sàkku itam. Hmm. Euh, ngir ñu delloowaat ko. Hmm. ci communiqué bi nga xam ne def na ko nag moom maître Ciré Clédor Ly nee na dañoo manqué à la parole enlevé notamment Ousmane Sonko ci salle de réanimation sans avertir ses conseils muy ñoom avocats yi mais tamit le médecin traitant ainsi que le médecin personnel parce que Ousmane Sonko am na médecin personnel boo xam ne dafay saytu wérgu yaramam euh, ci loolee nag moom daal li ko jaaxal mooy dénkrogolaat la tuddee euh, li nga xam ne mi ngi xew hmm. arrogance tam yu jóge ci autorité yi ainsi que mépris ak comportement belliqueux bi nga xam ne euh, gis nañu ko daal à l'endroit des acteurs de la justice ci lu jëm ci corps médical bi ak société civile ak ñeneen ñoo xam ne daal dañuy saytu lu jëm ci morale ak éthique démocratique nee na nag en de l'Union interparlementaire dafay dénoncer comportement bi nga xam ne nag ñi euh, communauté internationale daal nañ koy yam parce que ñi ngi euh, gis li nga xam ne xew na waaye dafa mel ne dañ ci dëgg seen tànk gëm mm-hmm. seen bët mm-hmm. te itam euh, wax ñu ci benn yoon mi ngi fàttali sax ci ñi nga xam ne jot nañu fi ay gaañu gaañu ci manifestation yi ñu tamit ñàkkoon seen bakken ci même siège boobu itam mi ngi préciser ne lu jëm ci volonté populaire bi nga xam ne ci vingt 24 février ci atum 2024 bi ngir privé Ousmane Sonko li moom mooy ses droit électoraux euh, moom daal gis na lii yëpp loolu moom moo ko undu waaye tamit euh, moom euh, avocat bi mi ngi conclure daal nee na mu nekk ci prison bépp prison boo xam ne tëj nañ fa Ousmane Sonko mi ngi koy répété ne exigence populaire Euh, moom mooy demeurer maanaam bëggu-bëggu askan bi wala askan bi li nga xam ne ñoom ñoo ko exiger euh, loolu mooy demeurer rester tamit euh, sa mise en liberté dans les délais les plus brefs maanaam ñu bàyyi Ousmane Sonko ci ñu mu gën a gaawee ndaxte li nga xam ne mooy détention mag résultat intrigue judiciaire policière inadmissible su le corps social ak communauté internationale rester fidèle aux idéaux proclamés par la décision universelle des droits de l'homme cent de 1988 1948 ak euh, li nga xam ne mooy euh, droit de l'homme du citoyen yi nga xam ne xaatim nañ ko 1789 te ñu koy consacrer le droit à la résistance et à l'oppression doy na waar en tout cas euh, li nga xamante ni lettre bi ki la wax ki la wax lii bind di ñaawlu Cap Manuel bi koy ko yóbbu te avisé wuñu kenn Albourakh ban gis-gis nga ci am au minimum quand même. xamuñu nag exactement yoon naka lay demee bon. Mm. mais li ñu xam que ci néew. mooy xanaa booy euh, jëlee benn détenu boo xam ni. c'est pas n'importe qui dans ce pays. Mm. c'est le chef de l'opposition. Mm. ñu wax kooku ñàkk koo wax. nga koy jëlee fii di ko yóbbu fee te ki ngay jëlee fii yaramam neexul. nga ko yóbbu Cap Manuel xanaa au moins sax nga avisé. ñi nga xam ne ñoom ñooy ay avocat ay mbokkam tey ñoom bu ñu demee ba tuddee ko enlèvement mm-hmm. ñoom xam na bu baax lan moo tax ñu tuddee ko enlèvement mm-hmm. léegi lan moo tax Ousmane Sonko ñu koy jëlee si bi xotaan di ko yóbbu fee di ko jëlee fii di ko yóbbu Cap Manuel Hmm. lan la def quoi laa bëgg xam. Hmm. a fait. Hmm. mais mais bul fàttali nag avocat moo moo bind texte bi tamit. avocat ah, mais Sénégal yi tamit parce que benn lay pàkk la aussi. d'accord ñoo wax noonu la demee. détails yëpp ñoom ni ñu ko indee est noonu la demee. loolu tamit interrogation mais a mais dañ si war a basé pour jox sa avis. Ah, mais sa avis da nga mel ni ku dëggal li ñuy wax yow. mën a déggee nii ñoom bu ñu ñëwee joxe seen benn avis. Hmm. ñu trans ñu xool boobaa ñu compare. mais pour l'instant nii. Hmm. li maître wax noonu. ci hmm. loolu lañ mën a basé. danga naan bu dee dëgg la. li maître wax nii laa wax de. ci loolu lañ mën a basé parce que enlèvement la wax. enlèvement bu ñëwee na du enlèvement dañ koo jëlee fi yóbbu ko lii moo tax. boobaa ñu comparé. mais yow booy commenté. bu fekkee enlèvement nga dégg ni moom la ñu wax yow booy commenté jàpp ni dañ ko enlevé kon yow dëggal nga enlèvement déggoo li ma wax ba léegi de koy jëlee fii di ko yóbbu fee te yàlla neexul bu dee dëgg la waaye léegi man dama koy dëggal mm. ko yow da nga koy mm. dëggal ba gis leneen mm-hmm. leneen li moom li ko wax dafa leer maanaam dama koy ma wax li li wax nii li moom laay xaar mm-hmm. gis naa ko liir naa ko mm-hmm. léegi ñii laay xaar waaye léegi ñii li ñu wax loolu laa la bëgg wax allez-y ci laa jëm nii voilà ñëwal ci laa jëm mais moom tey def neen day tey duma na ngay xaaraat <laughs> donc euh, communiqué bi jógee euh, ci mm. ministère de la justice. ah d'accord euh, directeur général de l'administration pénitentiaire li ñu wax mooy. Mm. Euh, transfèrement bu Ousmane Sonko. Mm. ca prison bu Cap Manuel. booba tey mi ngi suscité de nombreux commentaires comme ni ñu ko gisee démb ak léegi de la part de ses avocats. xam mm-hmm. nga ah, wax nga léegi benn pàcc du lay. léegi ñoom lu ñu wax nee nañu ngir leeral. Mm-hmm. opinion bi mm-hmm. administration pénitentiaire dafay préciser benn. muy détenu bii di Ousmane Sonko est régulièrement sorti de la réanimation sur décision du médecin euh, conformément au bon de sortie émis à cet effet document à l'appui document bi nag wane wuñ ko ci mhm. tënk ne nañu mhm. euh, kii di Ousmane Sonko détenu boo xam mi ngi seen loxo dafa génn ci réanimation ci ndigalu médecin bi nga xam ne moo fa nekkee te jox ko bon boo xam ne daf ko signé mm, pour wane ne mën na génn mm-hmm. mooy benn ñu ne ñaar transfert bi nga xam ne daf nañ ko Cap Manuel dafay résulter également ci recommandation de son médecin traitant Mm. am nañu document bi mais mm. wan wanewuñu document bi ba tey ci mm. communiqué bi laa yem. ñett ñu ne visitu euh, détenu bi di Ousmane Sonko ñu ngi koy continuer de organiser selon la loi et conformément à sa volonté. ni nga ko def euh, démb yemoo 14 novembre atum 2023 muy service de communication bi nga xam ne euh, moom moo ko foofu ca euh, ministre de la ministère de la justice bu fekkee ne com mën nga ko daal di afficher mhm. envoyé naa la ko communiqué mhm. baa ngi noonu ñu daal di koy nag signé mhm. may fàttali ne communiqué bi nekkul lañu jàppee woon gone gi kan kii Abdoulaye Touré waaw Amadou Ba Amadou Ba waaw fuite de document xam na lu ñu ko jàppee woon ñoom ñoo ko wane pour ñu génne ko moo tax ñu génne ko moo génne ko euh, mais gis nga yaa ngi di euh, ñu ni Euh, mais son médecin traitant. Ah. d'accord ah. moo joxe ndigal ñu génnee Ousmane Sonko. waaw si ñoom loolu la ñuy bind. Mhm. kon li ñu def nii ñun nii assemblée bi ñun def nii dafa am ñu def. Mm-hmm. nii dafa am solo par exemple ñun dafa am ñuy toog si plateau yi bu benn nit bu ñu génnee benn texte ñu wax si wax si wax si seen xalaat. Mm-hmm. bu beneen texte amee ñu jël texte boobu duñ ci wax seen xalaat comprendre wala sinon duñ ko affiché. Mhm. donc c' est important booy traité information nga équilibré wu wane lii ñii li ñu wax. Mhm. nga wane tamit lii après yow nga toog def sa analyse. ma d' accord mais léegi Ouzin ma laaj la mhm, xam nga da laaj waaye itam da ngay tontu. Ah. parce que dañ lay laaj parce euh, euh, comme ni nga ko waxee bu dee ne Ousmane Sonko. chef de l' opposition ñu téye ko seen loxo. mu mel ne patate chaude dañu téye seen loxo ndax bu feebaree kii génn wax. Euh, keneen génn wax. buñ ko yóbbu. est-ce que du woon yoon ñu mm-hmm. aviser ay mm-hmm. avocat wam mm-hmm. ne leen dañoo jot bon de sortie boo xam ne Ousmane Sonko mën naa génn comme ni ñu ko bindee ci document bi nii li ñu wax document à l'appui bien que ñun amuñu document bi on se limite euh, ci communiqué bi nga xam ne ñoom def nañu ko woo avocat yi ne leen kat kayit gaa ngi nii médecin traitant bi ne leen a génn bon de sortie baa ngi nii seen client dañ koy jël yóbbu boo déggee avocat yi ne enlèvement la parce que yëguñu mm-hmm. ba ah, ñuy jël seen client di ko jël ko di ko yóbbu waaye mm-hmm. parce que en tant que avocat aussi war nañ xam seen client bu ñu ko jëlee fii fa lañ koy yóbbu ah. c'est le droit aussi kon d'accord nga ak man non mais en fait pour ma d'accord ak yow foog ma déglu ñi li wax <laughs> man mënuma ma xam nga xam man ni leer man dama ne benn lay bi dama ko lire ba pare waaw moo tax ma d'accord waaw ah, dama ne su <laughs> fekkee ñoom xam mm. ñoom dañoo wax ne avisé leen mm-hmm. mais man mënuma ko confirmer d'accord ñoom li ñuy wax dëgg la am dëgg man leeruma ñoom bu ñu waxee ni confirmé wu ñu am amul fekk ñoom woo nañ leen. waaw mais xam affaire avocat affaire avocat la. waaw est ce xam nga bu amul woon. est ce xam nga tey li avocat yi li ñuy wax bu amul woon. Mm. ñu yàgg nañoo def communiqué. Mm. te c'est communiqué c'est de bonne ku nekk da wax nga ne pour ñu gëm la. Mm. te avocat bu ñu waxee enlèvement. ñoom bu ñuy def communiqué bii dañu naan. Euh, bu ñu yemee ci trois points bi bu ñu dem ci quatrième point mhm. dañuy wax naan avocat Ousmane Sonko alerté woon nañ leen wax leen ne leen mhm. seen client ñu ngi ko yóbbu te defuñu ko mhm. kon ça veut dire que dañuy conformé wu ci li nga xam ne avocat yi moom la wax muy enlèvement parce que boo jëlee dara tey jël lii jël ko te yóbboo ko waxoo ko waa régie dañuy jàpp ne da ko sàcc mais bu fekkee tey wax nga régie ne ko ah lii kat maa ngi ko jël parce que lii moo tax ak kon ñu wax ne lii mais seen communiqué bi seen euh, détenu bi ko yóbbuñu ko médecin bi moo ko wax document à l'appui ana document bi transfert au Cap Manuel dañ ko def recommandation du médecin traitement ana mm-hmm. document bi. Mm-hmm. Mm-hmm. déjà ban gis-gis nga am ci. Euh, jaay doole gu metti xam nga jaay doole gu metti tey nit ki ne ko maa la ëpp doole dama la koy won loolu moo nekk ci diggante Ousmane Sonko ak état que mu neex ñenn ñi mu naqari ñenn ñi. man li ma xalaat loolu laay wax. mënoo topp nit di ko topp di ko topp jëlee ko këram jàppe ko Fatick jàppe ko Touba jàppee ko fu ne andi rebelle la euh, salafiste la andi violé na violé wul andi tey nga jël ko teg ko ci bërëb mu feebar barricade nga këram nga continuer di def loolu fiche de parrainage am nga ne doog ko jox jaay doole kese moo ko tax mhm. li lenn nag moo ko waral su bokkee ci élection yi gagné leen def nañ seen ay sondage defati nañ ko wax nañ ne ko wax na ne ne ko yow doo bokk mhm. yow la bokk en attendant ñuy xaar le 17 fan la wàllu mujjee ak i gëtam mais ngoone tamit euh, mën nañ mën nañ xalaat aussi tamit comme ñoom gars yi ni ñu ko ni ñu ko yóbbee man pour man sax lan pour pourquoi Cap Manuel en fait la tax ko fële ne na xotaan tamit. ah mais et puis tamit ku xam ne dafa tawat ba nit ñi naan dafa nekk réanimation pour yow temps bi juste de trop pour di ko delloowaat euh, euh, kaso. pour yow ah, man du consulté wu ma Ousmane. ma ci xel quoi en fait ma ne sama xel mënul egg foofu man du ma médecin. Hmm. consulté ma Ousmane Sonko. Hmm. gisuma Sonko état de santé ni nga ko xamee noonu laa ko xamee. Hmm. ca ca document ba ñuy wax naan moom la ñu jàppee ñaar ñii moo tax nga xam. yaa ngi toog fii bëggoon xam ana Ousmane Sonko. bëggoon xam usman Sonko mii ñu naan feebar naam feebarul. ndax dëgg la. bañ fi njëkkee wax grève de la faim ministre de la justice bii nga xam ne changé nañ ko def ko affaire étranger dafa génn naan naan na ndekki na samedi ñi naan lekk na mboroxe ñi naan lekk na dooma <laughs> daa tey ñëpp di préoccupé ci état de santé Ousmane Sonko xam la moo tax sénégalais xam état de santé Ousmane Sonko mm. papier bii nga xam tey teg nañ ci ay nit jàpp nañ ci ay nit nañ ci jàpp ñeneen nag ñeneen moo tax nit ñi xam ne Ousmane Sonko 40 mm-hmm. degré la am ci yaramam mm-hmm. day wàccu mm-hmm. dafa wax ay propos yoo xam ne kiiwul ak euh, àndul ak sagoom ak yooyu papier bi moo tax ñu xam ko bu document bi bu ñu newoon fiitewul yow doo xam lu jot Ousmane Sonko doo xam sax exactement fan la nekk parce que ñoom communiqué wuñu si loolu ñoom li ñu doon communiqué du état de santé Ousmane Sonko de. Mhm. te tey bu fekkoon sax dañuy wax ne Ousmane Sonko euh, feebar na man dama gis na ñoom bu ñuy génn. Mhm. dañ ko war a wu ci feebar parce que jullit du yónnee moromam kaso du yónnee moromam lu bon. waaye doo génnee document bi naan déedéet lii avocat bi lii ak lii ak lii c'est des gestes yoo xam ne c'est inhumain. Mhm. kayit gi daal moo tax tey nit ñi xam ne Ousmane Sonko. feebar na léegi nag. ñu ngi waaj a joxe décision bu CEDEAO. Mm. cour suprême ma ngay waaj joxe. Mm. si jamono boobee comme ni ko avocat wax ma emprente leen seen mot enlèvement ñu jël ko ñu ne enlevé nañ ko yóbbuwaat nañ ko Cap Manuel. Mm. Sébikotane lañ ko yóbbuwoon. lan moo tax ñu choisir yóbbu ko Cap Manuel ñoom ñoo ko mën a xam. ñun ñu koo xam parce que nekkuñu ci seen euh, communication. nekkuñu ci seen instance de décision. da ngay jékki-jékki jot xibaar ne lii moo am nga vérifier ñu ne loolu nga woo avocat mu wax effectivement lii moo am. man bañ naa ko yow xam nga li ma lay wax bu baax. Mhm. su dara amee ma dégg ko ci moom du ma laaj keneen. Mhm. damay dem ci ñi nga xam ñoom lañ concerné muy mhm. avocat en l'occurrence maître Ciré Clédor li may dégg sa client lii ak lii lu ma wax ma référé wu ci loolu. d'accord Albourakh loo si dolli. noonu képp la demee. amul loo si dolli en tout cas en tout cas en tout cas même bu euh, bu bu weesoo euh, ñoom ku ci nekk sa xibaar bi nga joxe. bu ci weesoo loolu te am na loo xam c'est pas humain en fait du du sax ndax bon Ousmane Sonko malgré tout nit doomu aadama la aussi situation yi ku nekk da nga koy xool sa waajur wala sa papa mais man moom wax dëgg naa am naa yërmande bu bu bu doy waar si moom parce que li ma si jaaxal mooy temps bi ma si jaaxal temps espace de benn 4 mois 3 si dund jafe-jafe yi yëpp donc lu lu lu lu metti la ko en fait et puis tamit gars yi nañu mais man dama comprendre man jugee fee Euh, maanaam fi ñu jugee quoi. naan nit ki dafa dem ba feebar bay délire xamul lu muy wax temps bi moo gàtt. Hmm. pour di ko delluwaat kaso si man si xel quoi. Hmm. même bu ko médecin joxee ay bon de sortie war na mën a dem pour man si xel daal wax dëggu yàlla war nañ ko mën a bàyyi mu toogaat hôpital ba si kanam. ah peut-être dinañ génn waxaat ay mbokkam tamit ay mbokkam. Hmm. parce que bu demee ba avocat yi xamuñu lu xew ay mbokkam lu ñuy xamee lu xew. parce que avocat affaire da da la ñuy référé bu leen rëccee rek donc ça veut dire que njabootam ak soxnaam mi jamono ji ma xamuñu seen. seen ma xam nga yow bi ñu bi nga jotee information. Mhm. ne Ousmane Sonko. Mhm. jëlee nañ ko Cap Manuel. Mhm. jëlee nañ ko mooy sa principal yóbbu ko Cap Manuel. am ñu bari dañu doon wax ne dëgg la est-ce que dëgg ñu bari dañu def attention. ci ci xibaar bi. il a fallu que El Malick. bind ci page Facebook dëggal ne Ousmane Sonko jël nañ ko yóbbu. xam nga euh, dëkk bi ku deful yoon. yoon mun na daal sa kaw. amul détenu de classe exceptionnelle wala privé mhm. mais yoon daf fi bàyyi ay defkat di jàpp ñoo xam ne def ñu dara xam nga bu ñu waxee ne Ousmane ko nekkul kuy daw d'autant plus que ne. Mhm. li nga xam ne moom lañ ko toppee di ko ko tuumaal ay ati ati at. Mhm. ba mu demee ca kanamu chambre criminelle loolu dañ ko teggi. Mhm. foofu rek la ñu waroon a teggi seen ay kaaka yépp teg xam ne kii ñuy fexeel mu mënuñ ci moom dara. mënoo ko jéem a booleeg ay soi-disant benn nit pour mu foto koog ñu naan jël na téléphone am sàcc na téléphone yow man mi ñàkk solo mi sax tey su ma toogoon fii damaa ay téléphone war na yàlla di nga gis ku bu dee benn 33 euh, 10 euh, di nga ko gis. kon Ousmane Sonko mi nga xam ne ay bracelet bracelet nit ñi dañ koy jënd. Ousmane Sonko am na problème mu téléphone. non Ousmane Sonko bu toogoon wax euh, euh, nañu nañu def xaw ma lan mooy seen kii yooyu ñuy def. seen fonds yooyu ñu levé. téléphone xanaa tey kon nga gis. Euh, ay conteneur téléphone wàcc këram. Mm. donc kooku mën nga ko tuumaat ci affaire wu sàcc téléphone xam nga ni ñu ko defee moo élémentaire. Mm. moo enfantin. parce que nit soo koy jàpp da am fit dem jëli ko jàpp ko. mais doo teg ay diil naan dafa dóor kii dafa sàcc téléphone kii di juum ci ay casse di ci bu xëyee nga jël xale bu jigéen ne daf ko doon sàkku nga jóge ci loolu ça pas marché. parce que pendant deux ans ñu ñuy jaay que ne Ousmane Sonko c'est un violeur. nañ ko dafay yàqataan koo wax seen conférence de presse yi ñu daan dem ñëpp gis nga nit ñi. bañ nañ ko ñu gisoon euh, naa yàlla hmm. toog naan non audio bu ma gis kii bu ma gis kañ man vidéo yi ma gis ay leader responsable yoo xam ne ay kilifa lañu am njaboot am doom am ay mag am yëpp nekk kilifa yoo xam bu ñu toogee seen kër dañuy wax toog ci plateau télé mm. nga tiimal la ñu naan la bés bu preuve yi génnee mm. ngeen xam ne lépp dëgg la ñaata at gisoo preuve gisoo taat gisoo ween gisoo dara ba ñu mujjee seen mafia cartel boobu kalaate ñi di tamante dëmm ñi sàccoon xaalis feeñ ñi doon diil feeñ mm. ñu teg yëpp tegg fee naan Ousmane Sonko léegi andi beneen mbir teg ko fi. léegi soo kon kon waa Pastef. war nañu fier ci seen bopp parce ku wax dëgg ñu ne fa la bokk. fii gis nañ fi député bu fi trafiqué ay faux billets ñu jàpp ko ci biir oto muy jooy. di gañ magum jëmm di gañ naan suturaal leen ma nañu nañu kii nañu kii nañu kii ñu jàpp ko fi jékki-jékki ne dafa jabet ci kii bi bàyyi nañ ko ñibbi na. gisuñu fi ay député yu fi trafiqué ay passeport diplomatique. Mm-hmm. ñaata force fond Covid 19 ñaata milliards la ñu wax ci Sénégal mm-hmm. ne ñoom la ñu détourné dig di di yàpp ay nit ci dégg benn arrestation ana ministère yi nga xam ne ñoo fi nekkoon société chinois boo xam ne dañ doon jaay benn masque 3340 francs masque mm-hmm. boo xam ne benn 100 francs lay jar benn masque ñu koy jaay surfacturation boobu yépp ana ñooñu léegi ñu bëgg jàpp benn doomu jàmm boo xam ne deful dara yow soo toogee ne deful dara parce que li ngay wax ne deful dara nekkul ne da nga ànd ak Ousmane Sonko da nga am pratique Pastef mhm. da ngay analyser di gis fee nu mu demee mhm. tey bu fekkoon ne Ousmane Sonko dañ ko condamné pour des faits de viol ak menace de mort fii la Adji Sarr taxaw ne daf ma daan violé tey ñaari pistolet ci loxo mbete kabooy lépp toog ci bàyyi loolu ñu dem ba ci leen nga parce que nit ñi ñoo dem ba gëmatuñ leen mm. Mm. moo tax ñu war a may kii jàmm bàyyi ko mu dem këram mm-hmm. ñoom ñu nekk ci leen ñetti weer neex naa muñ mm. boo xamee ne yow ñetti weer moo la fi dese nga saafonte ak sénégalais yi ni muy defee tournée économique nii ñu bàyyi ko mu dem di tàggatoo ndànk ànd ak Amadou Ba ñu tàggatoo waale buñ ko defee buñ ñëwee ñetti weer yi bu jeexee ku ci nekk xool ki nga bëgg voter nga voter ko mm-hmm. mais buñ ne joxeel fiche parrainage am nga dàq kooku andi keneen ñu ne déedéet ko kooku dafa retraité bu yàgg retraité bu yàgg nga bàyyi ko ba instant bu mu ne joxe fiche de parrainage tey nga andi keneen mm. ki nga andi déjà ñu ngi wax ne waru fa toog parce que euh, dafa am mm. politique mm. gis nañ ko mun a daan campagnal nga ne fii lay toog parce que yow yaay yor sa ay décision yow yaay am doole ñoom amuñu doole passation de service gars yi nañ comme waa ministère quoi en fait dafa yàgg de boobu ak léegi mais bon yàlla baax na Ousseyn yaa ba wubbali rek yàlla baax na <laughs> voilà alors Ngoné bu ñu jógee ci loolu ñu euh, jàll ci euh, beneen ponk en tout cas doy na waar doy na waar mais nag comme ni ñu wax rek tawat